ñëw dugg zone nord fekk si fii ànd ak sunu coordinateur bi nga xam ni mooy imam Cheikh Omar Dem yàgg sonn ci président Macky Sall lool waaye ñu ñëw fekk si tey kenn ci ñun di Serigne Modou Lo tubaarakallaahu di ko ñaanal moom it yal na ko yàlla gën a sàmm yàlla gën a guddal fanam wéral cëram jataay bi Serigne Ibrahima Ndiaye Daabay bokk na ci mu sëñ Modou Fallou Ndiaye Daabay moom Cheikh moo Ndiaye Daabay sëñ du Diouf moom it ku ko xam xam ko ci zone nord ci taxawaayam ak jàppale ki nga xamante ni moom lay jàppale dëkk bi waaye tey ñu ngi ñëw ngir wax ci doomi zone nord yi doomu zone nord yi nga xamante ni bi am na loo xam ne war na sa digganteem ak président Macky sàll kàddu googu nag buñ koy wax duñ ko jàllale directement ndax am na koo xamante ni bii fii la dëkk fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo yàgg sonn moom lool ci président Macky Sall muy Serigne Modou Lo dañ koy bàyyee kàddu gi mu ñëw wax doomu zone noor yi nga xamante ni bii suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi jël seen alal jël seen temps di ko jàppale ki nga xamante ni bii moo di président Macky Sall kon Serigne Modou Lo bismillah. seytaan rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala wa ashaabihi sawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu en tant que ñun sëriñ Modou Lo sëriñ Makhtar Lo Cheikh Ababacar Lo fii ci Madina Fall ci zone nord leen ziyaar yi bu baax a baax yéen mbokk yi fi teew yépp euh, te ci bopp bi coordonnateur Sëñ Omar Dem mi nga xamante ni moo jiite mouvement religieux pour l'émergence nga xamante ni ah, fii ngeen ñëw bànqaas la ci mouvement bi muy zone nord ngeen xam wàcc waayu zone am ci dëkk bi ma feggoog sama mbokk Sëñ Ibrahima Ndiaye di sët ci Sëriñ Mor Ndiaye Daabaay nga xam ni fii ma toog di fi wax euh, mënoon na fee toog di fi wax ndax ñoo bokk maam yi bokk gox bi euh, bokk mbokk gi nga ànd ak grand sëriñ ñëpp ngeen ñëw tànn ñu ñëw fii ci kër gi ah euh, mbokki journaliste yi ngeen fekk fii suñuy mbokk suñuy dëkkandoo suñ Fallou Bané Gueye bokk ci ñi nga xam ni ah ci njabootu dëkk bi lañu di sonn ci président di jàppale njaboot gi lépp luy jëm ci luy dolli zone nord ak Madina Fall ñu ngi ci euh, Mamadou Diouf ngay ñu wax Doudou moom itam wax dëgg yàlla euh, ku ràññee la moom tamit ci biir euh, yoon wi muy liggéey bi muy jàppale président di responsable bu mag ah, jataay bi li ko lal mooy danoo wax ni ko wal mburu tudd dëkk moi réalisé pour l'émergence moo sàkku ñu def ab génn adressé ko président de la république ak mboolem njabootam yi nga xam ni ñu ngi nekk ci ginnaaw président di ko jàppale. Euh, ñu sawar ci nag lool ndax dafa fekk ñu ñu di ko jàpp ñu jàpp ko di ko jàppale. Euh, nit ñi xam nañu euh, wàcc waaye wan lan am ci président ci jàppale gi loola moo jur. Euh, ma yi woon mouvement bu mag ci turu njaboot gi ñi topp ci sama ginnaaw doon ko jàppale jàpp ci mbooleem élection yi nga xam ne président def na ko fi kër gii ngeen ñëw tamit bi président di ñëw Thiès 2009 ci kër gii la wàcc ci Medina loo Looyeen looloot ñu xam ni kon euh, fi koy defee am na dayo ci war a wax ci liñ bëgg a wax fekk fi sunu mag ju baax ji sëriñ Seex ñu nuyu la ko ak njabootu famille Looyeen gi yëpp loola tamit président mi ngi koy wéyal suñu diggante ak moom 2017 euh, le 4 juin 2017 fekk naa ko Durban ci Afrique du Sud jóge Johannesburg bu dem fekki ko fa def lu war a mat 600 et quelques kilomètres yëg ni ma nga fa ma dem ngir yëg fedd li kóllëre gi dox suñu diggante ak moom ak kër gi mu xàmmee ñu lool photo yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi loola da ko wéyal loola tamit moo jurit premier ministre am di doomu Gosaas ci boobu jamono Mohamed Boun Abdallah Dionne ah nin xamee kër sëñ Mbayloo gii ma bokk noonu la ne amee pénc foofee ca Gosaas muy Daaru Rahman moom muy njaboot ca kër ga di sunu wóllëre ñu am kóllëre gure rëy tax ma gën a engagé tamit ci jàppale président ba tax ma defoon ab mouvement bu mag Euh, toftal ko ci ginnaaw Mohamed Boun Abdallah Dionne di jàppale président loolu fii seen naa ko ci fànn yëpp bokkaat nag ci suñu mouvement bu mag bi nga xam ne mooy mooy mouvement religieux pour l'émergence dégg nga euh, toog toog toogee ko fii ci zone nord ah président wax dëgg yàlla ñoon dañ lay sant nag bu baax ci Thiès ndax koo koo fi jox ab cër ci Thiès rek ñun nga ko defal dañ la ci sant mbokk yi nga def ñu doon ay ministre kontaan nañ ci commencé ci ñoom monsieur ba jatara li nga ko def bég nañ ci na nga ko defee ci Pape amadu Ndiaye docteur Ndiaye la nga ko def gis nañ ko bég nañ ci ndax ñu képp kuy njabootu président rek dañ laa boole ci sunu bopp amuñu xaaj ji ak seen ba ci ñoom euh, euh, DC euh, Abdoulaye Dieye li nga ko mujjee jox barki démb njabootu Thiès gépp bég nañ ci kontaan nañ ci euh, muy jëf ju rëy ju set ju sell tam wóor leen ñoom ñëpp ni loole ngi leen joxe ay laxasaay lañ koy def ngir fas yéenee liggéey la liggéey bu mucc ayib ñu ngi ciy sant ñu ngi ciy gërëm mbooleem cër boo joxe ci Thiès rek bégg nañ ko ndax cees la am waaye it ñu wëlbati ko waatit nag fii nga xamante ne mooy zone nord zone nord buñ ko waxee électoral bi yow président yaa ñu ko gën a xam ndax mboolem statistique yëpp yoree nga ko ñu dëkk nag fii ci Médina Fall mu am lu mu doonaat ci biir zone nord kon bu ne zone nord mooy Médina Fall rek bu ne Médina Fall mooy zone nord doomi zone nord yii lan bëgg président nga geestu leen cëral leen ndax ñun kat danoo newoon ci liggéey bi di la jàppale waaye dañ leen cee ràññee ba mën a jaar ci seeni tur ndax man comité électoral bu zone noor lépp lu doon doonoon aspect religieux bi man mi leen ko tegoon ci sama loxo kon ma àndoon ak responsable kenn ku nekk ma gis noo ci doxe ak noo ci jëfee ma lu ñoom ñëpp seen pasteef te it doonu doonut ñooy làmbatu wala ñu leen di tudd nga naan kooku mooy kan ndax bu ñu tuddoon ku mel ni Ousmane Diop gis nga taxawaayam recevoir nga ko France bi mu ñëwee fii daanaka mën na ni gaynde la gis nanu ni mu taxawee ci jàppale la ko jeexal dooleem ak i sañ-sañam ak i pexeem ak kàttanam ba mu mat sëkk ci yow boo jëloon tamit ku mel ni mën lay sekk doomu Sonor la di doomu Medina Fall recevoir nga ko fële ci Angleterre toog ak moom kon doonul koy laajte kan la doon kon ñu la ñoo xamul waaye ñoom it bi ñu dikkee danoo ràññi ñoom it seen taxawaay ci sa ginnaaw danoo wax ni nag ku yokkul da ngaa wàññi waaye ñoom kat liñ fi fekkoon liñ fi fekkoon ci élection yii doon ñoom gagné wuñu Thiès dégg nga liñ fi fekkoon dañ koo yokk fu nu fekkoon résultat lu toll ci ay 5000 voix dégg nga ñoom ñu yóbbu ko ba ba mu def presque ay mille et quelque wala 8000 dégg nga xam nga ni kon ñooñu li ni ko yokkul da ngaa wàññi kon ñoom danoo yokk danoo dolli bu wér wér ñaareel bi ñetteel bi tam amaat koo xamante ni di. doomu doomu doomu Madina Fall di doomu zone nord kooku kan la muy Pape Malick Sawit ba tey di xale koo xam ni yow yaa ko formé doomu APR la moom ci la juddu ci la màgg ci la yaru ba fi mu toll mu tolle fi magg gisit loo xam ni mën naa koo seede ci moom moom mooy seule personne boo xam ni keroog bi ni euh, samp comité euh, électoral bu zone nord poste bu nekk bu nit ne bëgg naa am na ko ne ca wet gi wane ni bëgg naa ñuy xool ba xam kan lañ ko ci jox waaye moom danoo tudd turam saal bépp tàccoondoo ñépp tàccoondoo daan ni kii de yeyoo na ko ñépp rafetlu ko muy muy doomu Thiès di cadre moom tamit ñoom ñii ñépp wax dëgg yàlla seenub yar nag seeni teggin seeni taalibe mooy tax doo duñu taxaw mukk ni président fëgg seen dënn la président defal ma lii waaye ñun ñi nemmeeku seenu doxin ci biir njaboot gi nemmeeku ko ci biir askan wi lu ne seen loxo dugg ci ay social ña nga koy def ñoom ñett ñooñu ma wax ñëpp ak ñeneen ñu dul ñoom waaye dama damaa mën a tuddul ñooñu rek bu ma ko tuddee rek dana dana misaal ci ni kon njabootu zone nord bari nanu waaye ku ci ne jëf nga fi loo xamante ni si bu nekkoon fii di ko tudd di ko tudd mën na mën na fee yend wala ñu fanaan ci détail danoo wax ni al isaaratu tek fii juñ gi dafay doy waaye ku ci nekk ci ñoom ñooñu mën naa laay jël naan na lii la fi def ci social lii la fi def ci askan wi lii la def ci njaboot gi nii la fi taxawee ñoom ñëpp muy Maley di Ousmane di Pape Malick ñi ngi lay ñaan nga gestu zone nord jëmee ko ci jëmm yooyu yi ñu tudd loolu de boo ko defee président doo ko réccu ndax coow li bari na lool yëngu bi bari na lool ku nekk mi ngi wax waaye ñoom de ñoo ngi nii dégg rek nekk fi ni nekk tey bu nu doonoon ay bu nu doonoon ay sàmba sugum ga du doo doo doo jot ci ñoom bay toogook ñoom waaye ñoom ñëpp day digg naaj wu tàng jër ñu ngi dugg ci nit ñi ñu ngi lay wutali nit ñu ngi lay wutal ñu la jàppale ci seen moyen bopp nag doole ci kon dafa jaar du te rafet ba nu toogee ci jataay bu mel nii ñu ñu fàttali la jëmm yooyu kon ci mbooleem nomination yi nga def ci Thiès gépp rafetlu la ñëpp ñëpp suñu xarit ñëpp suñu wóllëre amuñu ak kenn xaar ma yàlla ndax ñun képp ku la jublu rek sunu nit la waa képp ku la ku jublu rek ñun jublu nañ kooka kon loolaa tax nag président ñu lay ñaan ci njaboot gi féete zone nord rawatina waa Medina Fall gi électoral Medina Fall xam nañ ko dëkk boo xam ni boo boo boo jëloon Tamba commune électorale am ëppul doole électorale mi dina faal boo jëloon région de Tamba yépp jël zone nord bi nga xamante ne ci la mi dina faal bokk euh, zone nord ëpp électorale région de Tamba boo jëloon lu mel ni euh, comme exemple Pout Kayar Xombal ñoom ñëpp ñett ñetti yooyu yëpp boo leen boole woon seen électoral électoral u Medina Fall waxuma zone nord bu Medina Fall sax romb leen kon wax dëgg yàlla euh, zone nord kon am na lu mu taxawee ci Thiès nomination yi ñu ngi koy dégg fépp nag rafetlu nanu ko waaye nag dañ koo bëgg fii ci zone nord ci njabootu zone nord ci ñii ñu la tudd. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci nekk ak santam nuyoo bi nag di ci jiital sama sëriñ Modou Ballo yow nag bu la joxee nuyu bi rek maanaam mën na parce que ak sa délégation bi nga àndal ak sa mouvement bi ñu ngi la jox nuyu bi nga jàllale ko. seulement nag wax ji ñu ciy wax nii mën naa ni mënoonoo bañ a wax sax parce que daanaka sëriñ bi wax na lépp waaye nag fekkee dafa bokk ndax ragal du weddi dindu tuuma la mbir nag bu yàlla defoon nga fekkee ko day baax bu jataay tegee nga wax ca da ci am solo parce que daanaka politique bi moom ni ñu ko fale woon man na la amoon ay responsabilités yoo xam dama ko yor ba bi jiitu mooy Pape Malick lii ngeen wax ne ni Pape Malick moo ko joxe barki Demba Ndiaye fekk na ma koñ yu mel nii alhamdulilahi rabbi alamin bi ma fi teewee bu ma duggee loolu nag damay dugg ci cadre politique bi tamit parce que très parce que xam naa ni ku limul da nga juum wala nga fàtte sama sëriñ lim na loolu baax na waaye am na ci ñoo xam ne xëy na tamit ci dëkk bi la ñu dëkk dëkk ci zone nord nag amoon ci ay responsabilité liggéey fi liggéey moo ci comme ni nga ko waxee léegi loolu nag dama ci gën a firnde parce que li tax ma gën a man moo waxee dañ ko xam dañuy wax dina doon seede te li may wax am maanaam mën naa ko wax te bu ma dañ ko dégg tax ñu koy dégg mooy parce que fekke li ma fekk bëri mitin bi mujj mu lay mu lay mujjee def yéen ñoo ngeen couvrir ko man micro central mu lay sekk def lu mucc ayib fii ci zone nord boo ko ay moromam waaye nag bi ci jiitu ba dañu àgg foofu dañoo amoon ci élection yoo xam ne dafa compliqué woon élection yi nag ñu am lu ñu waxtaane woon muy waxtaan woo xam dafa amoon solo lool Babacar li tax mu amoon solo mooy dañu waxtaane woon ñun ñëpp mekk ndak ndaye ak bàyyi jiitaloon ci kan muy Alsane Ndiaye Alsane Ndiaye dox ci lu mucc ayib waaw Alsane Ndiaye benn mu su nekkoon monsieur le maire woote woon fi rassemblement bu mag ci la ñu woote woon woo leader yëpp ñëw bu ñu ñëwee ñun élection yi de suñu élection la ñun élection yi loo xam ne élection zone la ñoo bokk nday ak bàyyi kon nag day baax bu ñu bu ñu duggee ci élection yi ñu di ko leeral kon nag jotaay bu mel ni bu amee dana baax ñu leeral ni ñooñu dañu am taxawaay bu ñu taxawoon mu am taxawaay bu am solo alsan di seen mag di doyen yo yu mag dox dox doxi lu mag léegi sama sëriñ na ci nomination yi loolu li waxtaan nag moom ni ko ku ñu nommé respect bi respect ci kilifa mooy nit su dëkkee defee dara koy bàyyi la mu def waaye yow li nga bëgg wax ko ñun nag li ñu bëgg d'accord nañ ci ñu mu fal waaye li ñu bëgg ñun mu fal zone nord ñi fi ne parce que mérito nañu te man su ma ko waxee ko parce que ànd naag ñoom liggéey ñu def liggéey bu mucc ayib kon nag suñu amee occasion bu mel ni tamit dana baax ñu wax loolu bu ko defee président la République dégg ko waaw dina ko parce que man yàlla moo waa kër Ablaye Dieye barka démoo njaar lañu gisee parce que ñoom dañ may jàppe noonu boo xam ne man leen yàlla ma bind noonu man du ma xàjj seen kon lii tamit dana baax tamit ñu wax ne kon président de la république wax dëgg yàlla benn bu baax ñaar yu baax fukk baax ko gën buñ ko amoon na ci zone nord bi dina nekk lu gënal te ñi fi nekk ñëpp borom yi xam-xam lañu borom yi dayoo lañu borom yi man-man kon su leen falee dina ko yëg te am solo fii ci Sénégal dina am solo solo ci Thiès te nag li ñu bëgg ci Thiès mooy dañoo bëgg vraiment mu nekkoon fa may waxet ñi nu falit part de responsable bi ñu am mooy président de la République daf leen fal pour ñu yaatal pour ñu jotale loolu moo taxit ñun ñu am ci ñoom confiance war a am ci ñeneen ñi am ñu bëgg a falit ñu war a ci ñoom confiance bëgg mu def loolu bu ko defee wax dëgg li ñu bëgg lépp lañu ko am loolu daal laa ne woon sama sëriñ mënu ma ko cee bañ jàllale yéen it ñu ngi rafetlu rafetlu journaliste yi dañu vraiment amuñu seen fay wax dëgg yàlla li ma ko waxee léegi